ab bu nekk unité 18 euh, euh, Mamour ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga euh, branché micro bi comme ça très rapidement Euh, voilà am am na boo yore ñu ngi lay euh, tey da nga yóbbu Parcelles Assainies benn daara bu nekk unité 18. macha allah Ba Cheikh comme ni nga ko waxee rek maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu ñuy bokkal plateau bi yëpp di nuyu itam mboolem téléspectateur yi ñu seetaan comme ni nga ko waxee rek euh, ci tàmbali bi demoon nañ ci Parcelles Assainies unité 18 ci daara bu ñu duppee Matlabul Hidaya Serigne Abdou xam ne moo fa def moo fa nekk di def liggéey bu koo yaatal ndax bee passé dañoo jëloon melokaanu Serigne daara tey nag damaa indi melokaanu donga daara ah.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 yoo xam ne jàngal nañ jàng nañu alquran ba mokkal ko am na it lim bu takkoo takk boo xam ne jot nañoo wàcc alquran waaye mokkalun dundinu daara ji moom mooy ni daara yëpp di dund rek am na si lenn ci way jur yoo xam ne weeru de wu nag am na doon warloo daara ji loo xam ne dañ koy joxe ngir ñu mën cee fay location yi mën cee dundal tout tànk yi ñu jox waaye fay ci facture yi ak ñi nga xam ne ñooy yëngu ci biir daara ji moo xam jàngalekat la wala toggkat wala fóotkat yooyu yëpp ci li way jur yi joxe ci leen koy for di ko delloowaat ci biir daara ji. am na programme bu ñu teg boo xam ne ngir ñu mokk alxuraan la xëy na école bi amagut ci biir daara ji waaye xale yi mokk alxuraan ci fii ci daara ji ñu ëpp ci ñoom am na école yu ñu leen di dugal yoo xam ne dañuy def trois ans def entrée en sixième au lieu ñu koy def six an mais dañuy def ñetti at am en sixième nga xam ne dana am trois ans yu dab yoo xam ne dañ koo defoon ci biir daara ji. nga xam ne dañuy génn dem ci école bi tolloowaat ak ña demutoon daara ci école ba wala sax ñu raw leen ci dëkkuwaay ji ñoom dal leen a ber ñu ci nekk ak seenu nekkuwaay léeg-léeg waajur ñëw fi ñëw ci daara ji ba ñibbi sax du xam ne aw jigéen a ngi fi ndax aw góor léegi fekk aw jigéen a nga fa ndax bokkuñu fu ñu nekk ku ci nekk ak ku ne xam ne na góor ak jigéen waru waruñoo mën a jaxasoo benn jaxasoo moo tax ku ci nekk ñu wutal la ab nekkuwaay bu mucc ay boo xam ne am na ñu koy saytu ñu nekk ak ñoom dëkk ak ñoom wa atiu allah wa rasulahu bi daa war a am ay jikko yu rafet jikko yoo xam ne xale bi da koy xool di ko nàmpe ci moom xale bi doon war naa doon ku dégg ndigal war naa doon kuy jëfe ndigal koo xam ne it euh, dana yëg ne li ñu koy wax intérêt la ndax suñ daara bi mel na ni mu war a war mel ba pare bay defare kon ci muy defar moo war a yëg na da koy defar mu fexe ba dégg ndigal bàyyi ay tare ba pare it xam la ko fa indi mu nekk ca ndax damay faral di wax gone yi naan leen xam li la war def ko jóg fi noppale na soo ko deful ku ñëw def ko dem bala fa aw way la léeg-léeg wu ñuy wayee xaale yi woo xam ne day yëg ne xale bi dëkkul ci daara ji dafay ñëw rek quelque temps ñu yar ko jàngal ko bu xamee lan ko doon jàngaloo mu dem mu defi leneen wala mu ñibbi war ci ay waajuram alladina yuqimuuna alsalata wa mimma razaqnaahum yunfiquun ulaika humul muminuuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim sadaqallahu al-azim allah rasulul karim mu ngoog daara jooju ma nga nekk Parcelles Assainies Euh, unité 18 euh, fa la demoon seeti leen euh, ndongo yi di jàng waaye ñay jàngale itam sëriñu daara yi doon ay jàmbaar nga fekkoon leen fa Mamour. macha allah Ba Cheikh comme ni nga ko waxee rek daara ji ma nga nekk fële ca Parcelles Assainies unité 18 sëriñ Abdou Wahab ñang liggéey bi am solo bi mu def nga xam ne bi ko sosee léegi yàgg nag yàggul toll ci fukki at ak juróom ndax ci atum la ko sànci. boobaak léegi bari nañu fa jaar ci góor ak jigéen a mokkal ñenn ñi waxi borom xam-xam yi mhm. waaye itam mu doon jàmbaar ndax bu ñu gisee organisé wu na bu baax ci lépp loo xamante ni rek mu ngi jëmale daara kanam fexe ba dajale ay góor ak jigéen waaye ñenn ba seenum njàng mhm. euh, ñu gën a am xam-xam bu baax a baax mhm. di ko moom sëñ Abdou Wahab ñang di ñaanal tamit xale yi nga xam ne ñi nga fa suñu borom may leen barkeb alquranul karim toftal nag muy euh, yi nga xam ne ab donga daara na ko làmbool ndax bi passé damaa indi melokaanu sëriñ daara wax ci lu yaatu euh, jiital ci yërmande waaye su may delluwaat ci donga daara ni mu war a meloo du ma ne dara jiitu ci lu dul yar ak teggin waaye war xam bu baax lan lañ koy xamal mi alxuraanul karim mu fonk alxuraan bu baax a baax waaye itam mu fonk sëriñ daara ba koy jàngal ndax waxoon naa la moo gën ci nit ñi moom euh, jàngalekat bi nga xam ne jàng naa alxuraan ba noppi di ko jàngale mhm. nga fonk itam sëriñ daara bi fonk sëriñ daara bi noo ko war a defee fexe bay sax ci ay ndigalam di bàyyi ay terem ndax euh, waykat ba dafay wax ne xum lil muallimi wa fihi tabdila kaadal muallimu ay yakuna rasula nee na la jugal nga màggal jàngalekat bi ndax moom kat daanaka ab yonentu la kon jàngalekat la lu la kon fexeel euh, respecté ko bu baax a baax a baax ndax moom kat la muy xam xam na ko ba noppi yow yaa war a xam yaa war a jëriñu kon da nga koy fonk bu baax lu mu la digal nga def ko lu la tere itam nga bàyyi ko jox ko cër bi nga xam ne jox nga ko sa ñaari waajur sëriñ bi itam sëriñ Tuubaa dénkoon ñu ay bayit yu am solo yoo xam ne mm. ñun ñi jàng booy jàng xam am solo mu ne yaa ayyuha sibyaanu laa tastaqiloo anil oda wa bil xuloo mistaqiloo mu ne ee ndaw ñu maa ngi leen di dénk bu leen soxlawoo lu dul jub ak xam-xam kon sàkku xam-xam a tax ñu indi la fa waaye itam faa mu ànd ak jub jub googee nag yaa ngi koy mën a amee ci lépp loo xamante nii rek euh, tegal digal nañ la ko ci lu baax nga xam ko di ko def lu ñu lay watta di ko ci lu bon nga moytu ko bu baax a baax a baax tey sax ci ndigal ak tere moo am solo lool buñ nee xam-xam itam bu baree te amoo yar moom mooy tegee ne euh, jub mënul nekk ci yow euh, xayru kanzi wa xayru maxtaza bihi zoisi nee na lépp lu doomu aadama di fàggu ci àdduna ak alaxira yar ak teggin moo ca gën moo ca ëpp solo mm-hmm. kon jub yaa ngi ko mën a amee ci kaw nga yaru te boo yaroo mën a nekk ak sëriñ ba boo yaroo mën a nekk itam xale ya nga xam ne yaa ngi bokk ak ñoom jàngu bi

mën cee dimbalante bu baax a baax mm-hmm. mu tegaat ci ne mm. nañuy muñ yow xale bi yow laay waxal ndax bi mm. passé waxal naa sëriñ daara bi lu rëy mm-hmm. euh, ngir mu fonk lu bu baax waaye yow tam da ngay fonk sëriñu mm-hmm. mm-hmm. na boo nekkee ci daara di nga a a la la mënti dal rek na nga ko muñ ndax boo ko defee tanal xaslan di nga am ak jub te waxoon naa la boo amee jub rek euh, euh, di mën a mucc àdduna ak alaxira mu teg ci wa taalul jila yaa mutaalim ba tey da ngay raw say mas boo jubee tegaat ci ne laa tuksiri sakawa bul bari jàmbat boo nekkee ci daara di jàng alxuraan naqar wala tiis lu la mënti dikkal rek na ko muñ te bañ koo jàmbat ndax kat fa kun mu ta nekkal koo xam ne da ngay góorgóorlu ndax lu lu naqari moom defe naa ne jàmbaar rek lañ koy teg kon góorgóorlu bu baax a baax boo ko defee xataata sunu naas annaka mun xam nit sax dañuy dem ba yaakaar na yow ku ñu xéewale nga yow amoo dara lu la métti amoo leen looy yëg fekk na sax yow yàlla xam na waaye yow xam nga kon muñ moo tax loolu du a feeñ daat ci na nga ñeme xiif ndax fal ilmu laa yoxtaa li ma yox saa xam-xam duñ ko jox koo xamante ni dafa ragal xiif kon na nga góorgóorlu bu baax a baax a ci euh, nangoo ñeme xiif ndax ku ragal ku ragal xiif duñ ko jox xam-xam bal rabbuna abdan saburan yulhamu de mm. delluwaat ci aaya bi nga naan inna allaha ma sabirin ñi nga ànd ak ñi nga xam ne dañuy muñ bàyyi lii laa indiloon tey donga yi mm. ok mu ngoog jërëjëf Mamour sa maam Thierno mooy xaar moo tax mm. sa sët bi gis nga de macha allah ah wallaay wallaay wala yow la jël ñu <laughs> ñëw bàyyi leen ak Pape Cheikh Cheikh Thierno Ndiaye lañ leen di bàyyee léegi euh, ñu profité